jottali ziar ak nuyoo président de la président de la république Macky sal jotale ko sëñ Mountakha waaye di ko jaarale ci ki yor kàddoom di Serigne Cheikh Bass Abdou Khadr Mbacké di ziar ñi teew ci jataay bi yëpp te su ma tuddee Serigne Cheikh Bass daanaka yóbbaale na ñëpp sëñ Bass Abdou Khoudoss sama wala relawu yàgg di nuyu tamit euh, Serigne Koso ak euh, ñi teewee jataay bi yëpp di rafetlu kàddu yi nga xamante ni jub na fi di sant Serigne usman ci topp li nga xamante ni mi ngi koy topp liggéey bi ak saa su nekk li nga xamante ni jar naa euh, leeral ngir ñu am ci taxawaay yi ci war mi ngi koy def saa su nekk di wax ni président de la république lii lañu sant te waxal na ko boppam keroog bi mu fi ñëwee fa mu nekk mooy fexe ba lépp loo xamante ni war na ko fii ci Touba ni ko ko sëriñ bi leerale woon mu nekk ca loola nga xamante ni liggéeyal sëriñ Touba ngëneel la ci képp koo xamante ni yaa ngi koy def di sant bu baax sëriñ Cheikh Bass ci seede yi nga xamante ni def na ko léegi mu doon ay seede yu rafet waaye tamit mu am njàngale mu yaatu moo xamante ni nangoo nañ ko ci kàddu yu sell yi mu fi yëkkati bi muy wax léegi sama xel dafa am ci lu mu dem bi muy wax dayoo bi nga xamante ni moom la Touba am wax tamit li nga xamante ni moom la Serigne Touba euh, doxale diggam ak doomu aadama yi ak sax mbindeef yi ci ku nekk li ngay wut si muy àdduna wala àllaaxira boo ñëwee di ko fi fekk ba daaneel ci kaddu gi. leeral ni li sëriñ bi wax mooy ki ko jaaxal mooy ki nga xamante ni na ko yàlla def neexu ko mu mel ni loolu dafa am lu ma ci dégge dafa am sama benn xarit bu ma doon waxtaanal fan yi waaye loolu dama koy faral di def en privé damay waxtaan lu bari di nettali ay xisa sëriñ Saliou waaye saa su ma ko defee mu ne ma waaye yow danga nga war léeg-léeg bu ci biir waxtaan wi ak kii nga koy yaatal ba nit ñëpp tamit di ci mën a Euh, jariñu ndaxte xam nañ ni nitu yàlla yi euh, ay jàngalekat lañ te lépp lu ñu wax njariñ la ci ñi koy déglu ñëpp ba loolu moo waral dama déggoon euh, sëriñ bi am lu mu doon waxanteeg benn nit xam naa kooku sax du ma tudd turam waaye dafa bokkoon ci ñi nga xamante ni léeg-léeg Euh, bu ñu tuddee ku sant Mbàkke xañ na wàccuwaay bi leen sans borom jox xañ na du leen fa teg benn bis mu ñëw toog ak sëriñ Saliou Serigne bi laaj ko ni ko mbaa bokkoo ci ñi nga xamante ni dañ naan Serigne Touba amul mbokk mu ni ko déedéet te nee na booba ca la bokk sëriñ bi ni ko bu fekkee ni ca nga bokk na ko bàyyi ndax sans borom dogal na diggam ak aw nit ñu mbokkoo te képp ku weddi dogalu yàlla weddi nga yàlla loolee nag dafay dëppoo ak wax ji sëriñ bi wax nii euh, su fekkente ni nanguwoo li ko yàlla def dafay mel ni da nga weddi dogalu yàlla te ku weddi dogalu yàlla weddi nga yàlla loolu moom dama ci bëggoon a euh, joxe tuuti rek sama participation ci waxtaan woowu nga xam ni ñun ñëpp mun nañ koo jariñoo ndaxte daje yi dañ koy waajal ngir saytu xool fi liggéey bi toll jëmale ci li état bi seqoon ak comité d'organisation bi waaye mën nañ cee jariñu ñaari yoon ndax mën nañ cee jariñu ci li jëm ci waajaayu waajtaayu màggal gi waaye mën nañ cee jariñoo tamit ci fàttala fàttalekonte li nga xamante ni mooy jikko yu rafet yi ak xalaat yu rafet yi nga xamante ni loolu bokkoon na ci li taxoon sëriñ bi sanc dëkk bi bu loolu weesoo bu ma ñëwaatee ci wàllu euh, réalisation yi gouverneur wax na ko léegi li ñu waxante woon ci wàllu liggéey jëmale ko ci dëkk bi muy waajtaayu màggal gi téeméer boo jël liñ ci def ëpp na juróom-ñeent fukk ak juróom-benn nga xam ni xañ na li ci des lu néew la fii ak ñuy jëm ci màggal gi loolu nag dama ci euh, profito wax gouverneur ni li DG OFOR wax jëmale ko ci Daaru Xuddoos mooy forage boobu nga xamante ni mettre nañ ko en service. xañ na li des ci màggal gi bëriwul ñetti fan la waaye nañu gën a taxaw seetlu gën a baral tamit jéego yi suba ak ginnaaw suba ñu xool fan lañ toll ci impact bi nga xamante ni ñu ngi koy xaar ci biir Daaru Xuddoos am na leneen loo xamante ni tamit gouverneur wax na ko léegi mu jëm ci wàllu clé autoroute yi mais loolu jot naa ci waxtaan ak directeur général Ageroute Ibrahima Ndiaye laata may ñëw mais solution tamit feeñ na ci ndaxte li nga xamante ni mooy solution bi mooy euh, concessionnaire bi mooy ki ñu jox autoroute bi ngir mu gérer ko dañ koo boole léegi ak sapeur yi nga xamante ni fépp fu ñu soxla clé dañuy woote ci saa si ñu dem ubbil leen ko loolu it dañoo jàppoon ni dina indi tuuti jafe-jafe waaye ginnaaw bi bi ñu ci waxtaanee ak ki nga xamante ni moo jiite AGEROUTE solution feeñ na ci ba mujj nañ ci am euh, tawféex lii nga xamante ni mooy wàllu ndox mi sëñ Ousmane wax na ko xam naa ndox dafa tëddee ñaari. Euh, dafay taxawee ñaari taxawaayu ñaari tànk benn bi mooy ndox mi nga xamante ni dañ koy soxla ngir jëfandikoo ko waaye beneen bi mooy dañu nekk ci nawet ndox mi bëri lool Touba jaaxal nit ñi lool li ko waral nag ñaari mbir la benn bi mooy napp bi xam nañ ni day yéeg te gouverneur fàttali ko fàttali na ko léegi am na ñaar fukki forage yoo xam ne président santaane na ñu def ko fii ba fukki yéeg juróom benn ñi ngi liggéey beneen bi mooy mu ñu nekk nag ci diggu nawet napp bi ak nawet bi la napp bi liggéey bi ñu ci waroon def def nañ ko ci nawet beet bi mu indee ndox mi ñëw te ku ne xam na ne ndox xéewal la euh, li nga xamante ni waroon nañ ko am ci taxawaay keroog bi ñu defee réunion bi ca Dakar bañ ca jógee dama ni général Mor Seck ni ko yow moom léegi sa et sa quartier général da nga koy dem def defi Touba donc ñaari fan a ngi nii moom fii la nekk lépp loo xamante ni aajo woon na ko ci matériel ak ci moto pompe ak électropompe indi nañ ko fi indi fi tamit juróom fukki hydrocureur looloo taxoon ngeen gis euh, mbedd yu yaatu yëpp ñu manqué ko électropompe yi nga xamante ni tamit doyuloon ñu yokk ci ñaar fukk ak juróom yoo xamante ni capacité bi dafa ngand looloo tax ñu manqué ndox mi ba yoon yi ñu mënul woon a jaarit ñu jaar ko loolu mooy li nga xamante ni namoon nañ koo def ci ndigalu président de la république saafara bala ñu yegg ci màggal gi te suñ borom defal nañ ci jàmm ba bis bu ne bu ñu xëyee ak bu ñuy tëdd dinañ def point bi dinañ xool fan lañ toll ci liggéey bi li général Mor Seck di ma indil toujours comme xibaar mooy que ni jéego yi ñu ci def kawe na sax suñu njort loolu mooy li nga xamante ni bëggoon naa ko wax sëriñ bi di leen sant bu baax nag ci yaatal bi ak ci taxaw bi ak ci jokkoo bi nga xamante ni ñu ngi koy def saa su nekk ci liggéey bi. loolu daan moo doon kàddu yi di ñaan yàlla ñetti fan yi ñu dox suñu diggante ak màggal 4 pour cent yooyu des ci engagement yi ñu fexe ko ba réaliser ko ci. pour y tenir une réunion d'évaluation sur l'état d'exécution des différents besoins qui ont été exprimés par le comité d'organisation du Grand Magal de Touba. Comme j'ai l'habitude de le rappeler, un événement d'une dimension exceptionnelle rassemblant des populations venant du Sénégal, mais également des autres contrées. Quand nous avons fait le point avec le gouverneur de Djurbel, on a atteint un taux d'exécution de plus de 96% par rapport aux besoins qui ont, été, qui ont été exprimés. Cela, nous le devons à l'engagement et à mobilisation de tous les services de l'État, mais également à la bonne et franche collaboration des membres du comité d'organisation dont il me plaira de noter ou de citer l'implication remarquable de Serigne Ousmane Baké. Mais je ne pour poursuivre sans pour autant transmettre les salutations et les ziyaras les plus chaleureux de son Excellence Monsieur le Président de la République Macky Sall en direction du vénéré khalife général des Mourides Serigne Mountakha Mbacké que Dieu lui prête encore longue vie et lui assure une excellente santé. Et je demanderai à son porte-parole ici présent, dont l'implication n'est plus aussi à démontrer, de les lui transmettre. Nous sommes à 72 heures du Magal et le travail pour ce qui reste des 4% non encore réalisés dans le cadre des engagements fera l'objet d'un suivi précis avec l'implication personnelle du gouverneur, mais également de tous les autres services de l'État. La principale crainte reposait sur euh, l'alimentation en eau potable, mais il faut le souligner, avec la mise en service récente des quatre forages, nous avons reçu les assurances du directeur général de l'OFOR avec l'impact bénéfique attendu sur le réseau. Au-delà, il y a eu également le problème des inondations qui ont été soulevées à Touba, mais l'augmentation des moyens de pompage ainsi que l'acheminement des 50 hydrocureurs sur instruction également de son Excellence, Monsieur le Président de la République Macky Sall, ont permis d'assurer un soulagement ressentie parmi les populations les plus impactées. C'est donc euh, ce que je voulais donner comme précision, et en priant le Seigneur qu'il nous accorde la paix et pour arriver à un très bon Magal de l'édition 2022. Je vous remercie.